jaajëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal ci xibaar yi lee ñu ñu xamal ni biram Souleye Diop nag moom daal di nañ koy jàpp njiitu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi lee daal nañ koy jàpp foofe ca cité kër góor gi nag nga xam ni rek da doon dem ca kër Ousmane Sonko daal di rek ànd ak député yu Pastef fii lee ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci député bi di Rama Bodian moom nga xam ni fekkee woon na mbir yi lee mi nga wax ni rek biram Souleye Diop moomee da doon rek wanam way takk der yi ndax nag ginnaaw gi sax rek la wax ni moom day jàll rek ngir dem seeti ji Ousmane Sonko ca biir këram ca noonu lañ ko daal di gaz rek ngir puus ko nag ci anam yu metti waaye mu mel ni mbir mi nag dañ ko euh, waajoon nag bu baax a baax jëm ci biram su Souleye Diome moomee nga xam ni moom mooy numéro 2 jëm ci parti bi léegi ginnaaw googee sax nag moom way takk der yi rek dañoo dem daal di koy jëli rek ngir yóbbu ko. ñu daal di rek wéyal yi ba tey daal di àddu ci lu ñeel nag ñaar fukk ak juróom-ñaari xale yi jigéen yi nga xam ni rek dañ leen daal di sàkku foofee ni seen wayjur yi ñoom nag jug nañu rek daal di def ab say ngir rek daal di gis kile di Serigne Khadim Mbacké moomee ci wàllu yoon ndax mbir bu doy bi nga xam ni def na ko mu mel ni mbir moomee nag foofee ca Touba daal di xewee ba tax na wayjur yi ñoom sax daal di nañu rek amal ab bu ñu rek daal di teg jom ci ndoddu kile di Serigne Khadim moom mi nga xam ni sax nag moom gis nañu rek dafa dawoon jëm nag ci mbir mi. waaye nag fami maanaam way jur xale yi nga xam ne rek ñoom la ñu def jëf ju ñaaw joojee nag ñoom dañuy yóbbu mbir mi ci yoon ginnaaw gi sax nag daje nañu ak Serigne Bass Abdou Khadre mi nga xam ne rek moom moo yore baatu kër gi lee moom nag tax na mu daal di leen wax rek lu wóor jëm nag ci mbir moomee ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi lee jiwaa bës bés bi ñu ngi wax ni sax nag ñoom seen dossier ci nag mbir mi lañ ko daal di consacré maanaam ci mbir mi lañ ko daal di jëmale ci nag talaata gile ca noonee ñuy wax ni nag ñoom daje nañu rek ak Cheikh Bass ginnaaw gi waxtaan nañu lu toll nag ci huit ci guddi ba deux heures du matin. ginnaaw gi sax nag la ñuy xamle ni ñoom ñoom wax nañu rek ak moom jëm rek ci mbir moomee ba teg na nag dara ci seen loxo maanaam rek jëm ni mbir mi dinañ ko xoolaat bu baax a baax xool ba xam nag mbir mi fan rek lañ koy daal di féetale ak nan lañ koy daal di lijjante ca noone yëpp teg nañ ko ci capitaine Wade moom mi nga xam ni moo yore compagnie gendarmerie bile ci noone itam lañu rek daal di dem seet ji ko moom itam lan la wax rek bokk na ci la mu wax sax bokk na ci. ni nag sëriñ bi daal na koy woor ngir ñu waxtaan ci mbir moomee